président Macky Sall décision bu mu jël euh, décision la décision wu xel la décision wu responsable parce que li ko warloo woon ak réew mi def na ko parce que kaddu boo xam ni daf ko yëkkati woon en tant que candidat wax ni su yàlla defee ma falu mandat bi danañ ko def mu jógee juróom ñaari at ñëw si juróomi benn mais aussi wax ni man sama bopp danaa ko teg sama bopp waaye si diggante bi président Macky Sall dafa falu nekk président soo nekkee président la république nag da ngay day ak su fekkee ni chef de parti chef de mooy politicien buy wut soo soo ñëwee ba am ba yor dafa am ay wareef yu bees yu to yu tegu si sa mbagg wareef yooyu mooy la mooy sañ sañuloo doxal jël yenn dogal yi te diisoo woo si ak yeneen kuréel yi nga xam ni ñoom nga bokkal réew mi parce que réew mi Sénégal dëkku yoon la président am na domaine yoo xam ni waru si mun amul sañ-sañu jël si benn dogal su fekkee ni tribunal joxu ko xalaatam su fekkee ni assemblée nationale jox ko xalaatam waaye kaddu googu nga xam ni moom waxoon na ko te namoon ko sàmm ba mu laajee assemblée assemblée ba dañ ko wax ni mënoo ko teg sa bopp mu laaj tribunal tribunal ni mënoo ko teg sa bopp alors kon juboo nañu pour que juróomi at yi nga jeexal soo jeexalee sa mandat ba pare ñu doog a dugg si juróomi at yi te li ko door nag képp ku ñëwati mënul euh, weesu juróomi at benn te ñaar mënu mënul weesu benn mandat ñaari mandat alors loolu la yoon wax ni moo am président ni ay la yëwét man dogu woon laa si def li may def mbir mi waaye comme yoon ndax tax réew mi dama ko siq ak ay yoon yoon lii la wax fekk si naa yoon sa la mu wax loolu ñu rafetlu ko alors maintenant nag li nga xam ni man moom laa si yokk mooy tey jii li tax ma sant yàlla si président ñi mu nangoo li yoon wax mooy su fekkoon ni ko ñenn di xalaate daf ko jéggi woon loolu li mu tekki mooy ëllëg beneen président mën na ñëwaat ñu day yokk mandat yoon ni ko déet mu lànk ndax danaan Macky ba mu bëggee wàññi ñu ni ko déet dafa jéggi def lu ko neex ndaxte sooy jël kilifa suy dogal dafay sóor li muy dogal li muy jur ëllëg doo dogal rek pour tey mais da ngay dogal aussi pour ëllëg mën na nga fukki at wala ñaar fukki at wala fanweeri at nit mën na ñëw sukkandiku si la nga dogaloon pour dugal réew mi si fitna goo xam ne kenn du si génn alors loolu moo tax moom sàmm kaddu yoon wareef la et président maa ngi koy félicité si euh, taxawaayam si côté boobu li si topp aussi mooy wax naa ko sànq. nañu xalaat suñu sóobu woon forcé ni dañuy dem li muy jur li si jiitu mooy benn campagne mooy door donc ñaari atu campagne électorale lay doon danañ jëm campagne référendum danañ jëm campagne président danañ jëm campagne député loolu li muy jur mooy gouvernement bi sax parti bu nekk da ngay jëlaat sa bopp donc gouvernement bi mën na tasaaroo assemblée bi aussi mën na tasaalo mais nit ñi bu ñu fàtte ni euh, dañu nekk si ay dañu séq àddina ak ay réew te jamono ji nekk jamono ju metti ñëpp yëg nañu liy xew si réew bi suñu wet donc ñun lépp lu yee fitna du suñu intérêt mais ñeenteel ba aussi su fekkoon ni dañu dugg si yoon boobu bu ñu nax suñu bopp ñi nga xam ne ñooy dugal seen alal si réew bi dañ koy téye parce que dañuy xaar ba xam fii ba élection yi di passé lan lu bees booy xew si réew mi alors lii yëpp la ñu sukkandiku ba moo tax man en tout cas rafetlu na décision bi nga xam ni président Macky Sall jël na ko pour ni le conseil constitutionnel wax euh, def nañ euh, nangu fekk naa ko si léegi nag ñu ngi jëm si référendum bi référendum bi aussi li nga xam ni pour man moo si ëpp solo mooy dafa am ay yoon wi la ñu bëgg euh, si wàllu yoon sañ-sañu réew mi la président na ma yokk parce que soo xoolee fukk ak ponk juróomi ponk yi nga xam ni yépp président génne na ko pour ñu yokk ko si biir constitution bi buy muy suñu ndey atte yii day gën a dooleel assemblée yii day gën a dooleel maire yi yii day gën a dooleel citoyen yi yii day gën a dooleel tribunal bi attekat yi yii di gën a dooleel parti politique yi voilà alors surtout opposition bi par exemple tey jii loi bu bees bi nga xam ni su atte bu bees bi nga xam di wote nañ ko le président wax pour ñu wote ko suñ ko wote opposition bi day am kilifaam boo xam ni dañ koy jox cëram jox ko gëddam may ko sañ-sañu bés bu ne saa yi soxloo président fëgg bëntam mu ubbi ko te président dootul am sañ-sañu aussi di dogal ci problème réew yi te au moins ñëwul ñu woowu ko déglu ko mais loolu nekk na lu rëy loo xam ni su duggee suñ ko wotelee ba mu jàll dana jur jàmm si réew mi ndax nag bu ñu nax suñu bopp réew si jàmm lañ koy liggéey te si jàmm jooju li koy maye mooy ñi séq réew ma ñuy waxante seen biir di diisoo kilifa yi ñu bu ñu ñu bañ a xool ku nekk làng ga nga bokk mais jiital Sénégal jiital intérêt wu Sénégal mën di waxtaan te du tere nag ku nekk nga am sa sañ-sañ ak sa droit la nga xam ne la moom la la droit may yoon def may nga nga jël ko bu mat sëkk.